samay dëkkandoo yu dëkk Rëbës ak euh, Medina ci initiative bi ñu am ci ñëw euh, marqué seen solidarité ci président Lamine Diack ak njabootam ci li nga xam ne dal nañu boobook tey juróomi at euh, ñu ñuy bunt xattaal di ñu tuumaal affaire bu ndaw boo xam ne enquête commission d'éthique IAAF la woon ñu dem ba fexe daf ko affaire judiciaire bu am ay relents internation euh, internationaux loolu waral ñu tey ñu ñuy àtte ca tribunal euh, correctionnel bu Paris ba gis ngeen dogal bi waaye lépp loolu ci mën di gis rek jàpp leen ne étape la rek ndax euh, processus judiciaire moom am na première instance am na deuxième instance am na troisième instance am na sax ba cour européenne des droits de l'homme wala sax suñu bëggee ñu fekk leen pour pénal international mën nañu leen fa fekk ndax daf ñu wóor ne dafa ñu lu tax ñu war ñoo xarab euh, góor gi fukki at ak juróom benn yi mooy yor fédération bi kenn ko xëccoog moom kenn mësul nattable integrité daf na 39 ans IAAF euh, nekk vice président vingt trois ans nekk président 16 ans te kenn mësu ko euh, tiiñal ci dara ñu bàyyi ba mu génn le 21 septembre 2015 ñu déclenché benn enquête judiciaire ne lépp lu mu liggéeyoon ci fukki at ak juróom dara baaxu ci nañ nasaxal lépp nañ suul jëfam waaye nag boobu dañoo fàcc ne xamuñu sénégalais sénégalais surtout ay waalo waalo sax rawatina ndax euh, ay bañkat lañu euh, duñu nangu kenn suul jëfam man mii juróom-ñetti at dong laa liggéey ak moom waaye juróom-ñetti at yooyu. maa moom liggéey nañ ci lu am solo xam naa nag xarit yi ñu am nag ñoo leen neexul ndax jamono ji dëkk bu mel ni Russie wala dëkk bu mel ni Qatar wala dëkk bu mel ni Chine nga nekk seen xarit euh, doo neex ñu bari surtout suñu mbokk pays occidentaux yi xam naa ñoom loolu lañ ñu meree liñ fexe ba yóbbu ci dëkk yooyu lu toll ni championnat du monde lu toll ni Diamond League lu toll ni programme continental ay championnat yu mag a mag léegi nag euh, looloo ñu waral euh, tuuma yu bari yëpp léegi nag euh, li ñuy mën def rek tey dañu ñëw pour sant population sénégalaise bi yëpp pour jàppale bi nga xam ne def nañu ko président Lamine Diack mooy def nañu ay manifestation am na ñuy ñaan yor seen course yor seen satalaak seen tapis prière di ko ñaanal bés bu ne di ñaan yàlla tegal ko nattu bi mu ñibbisi ak jàmm ak salaam looloo taral tey masalaam lu ñu defa ngeen ma fi gis euh, waaye lu war la ñu ñëw sant leen euh, dool li sàkku ñaan ci yéen tàllal leen suñu loxo te xam ne lépp lu war rek ngir mu setal suñu der ak lépp lu war ngir mu ñibbisi ak jàmm ak salaam danañ ci nekk ak yéen danañ ci nekk population sénégalaise bi ak autorité bu ñu jàppale ngir ñu am ndam ci loolu yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla defal tawféex yàlla na yàlla may gudd fa ñun ñëpp ba ñu fekkee ñibbisi nag jaamu ak waaye moom tamit yàlla may ko wér-gi-yaram ak tawféex ba mën ñibbisi Sénégal ci ngëñam